asalaamaaleykum téléspectateur ak internaute Bichri Technologie amaan nañ mbégte bu baax a baax di leen ziar xam ngeen ne rek ak Bichri technologie boobu ba tey ñi ngi ànd ak yéen ci activité yi xew ci foire bi de 9h euh, ba 22h waaye xam ngeen ne nag boobu ba tey rek ñi ngi dugg ci stand yi di leen ko wan xam ngeen ne ba tey ñi ngi leen di indil ay yu am solo waaye ci noonu nag tey fii lañ ñëwee rek ci ñi nga xamante ne ni ay menuisier lañ xam ngeen nag ku wax foire euh, wax jënd ak jaay waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy menuisier yi it ñoom it ñi ngi gis bu baax a baax seen euh, bopp ci li nga xam ne moom mooy FIDAK 2018 ci noonu rek ci lañ leen di dékkee suñuy micro ñu wax ñu ñoom it li ñuy liggéey fii ci biir foire bi waaye it seen taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci ak depuis kañ lañ tàmbalee di teew ci li nga xam ne moom moo di euh, FIDAK euh, jër ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek jamono ji nag yegg si nañ ci fii nga xamante ne nii rek moom mooy menuisier yi gis nañ leen ñu nekk ci seen i activité di daaj ay contreplaqué di defar ba mu baax la ñuy dékkee kenn micro xam naa rek ginnaaw ku baax bi ñu la nuyoowee dañ lay bàyyi rek nga daal di ñuy baaxee tur bi nan nga tudd. man maa ngi tudd Amath Niang. sëñ Amath euh, fan nga jógee pour ñëw liggéey si si foire bi. bon maa ngi jóge fii Grand Yoff si ginnaaw Grand Yoff. Euh, chaque jour da ngeen fi ñëw wala. waaw dañ fiy daje rek xam nga kenn ku si nekk fu nga nekk ngay jógee ñi jóge nañ Kër ma saar ñi jóge Géejawaay Caaro yi boo ñun ñëpp fii la ñuy daje daal ñëw dàq suñu wërsëg daal. jógewu leen ci benn place maanaam. non non non ci benn gox ñun ñëpp dañoo kenn ku si nekk bokkul ak sa morom fi mu jógee mais buñ fu dajee daal dafa mel ni ñoo bokk ndey ak bàyyi. mais fekk nañ leen ngeen nekk ci activité yi di daaj lan ngeen di daaj nii exactement lan ngeen di defar. waaw li ay étagère la yoo xamante ni naar yi ñoo ko fi recommandé quoi mooy naaru marocain yi ñoo ko fi recommandé quoi xam naa peut-être pour teg ci seeni seeni seen daal. kon yéen da ngeen di faral di ñëw chaque fois di liggéey ak naar yi wala ñëpp ngeen di liggéey. waa noo ñun bàyyiwuñu kenn ku ñu ñëw fekk fii si place bi rek boo jëndee bant boo waxtaanee ñun bu buñ jubóoyee ci piir rek après ñu liggéey la bon nga am ci ñu am ci daal. kon bung la déggé en même temps nekul da ngeen di défar mais da ngeen ni am ay bantu yo xamné ne da ngeen koy jaay. bu ngeen paree euh, sogo mëna ligéyal nit ki waw ki. jaay ko to bant bi day ñëw day tok sur place léegi euh, bu ko défé client bi bu ñëwee tamit day day choisir menuisier bi lim bëgg. bu ko défé ñu and ak mom expliquer ko defal ko devis and ak mom ci to bant bi jël euh, matériel. soo mëna mën li nga xamné man mom la bëgg quoi parce que kenn ku ci nekk sa façon bu ngay bu ngay organiser sa place bon yow ya ko xamal sa bop kenn ku si nekk euh, boo ñëwee indi sa plan rek ñu liggéey la comme ni nga ko bëggee daal. Euh, jërëjëf mais ci li nga xamante ne ni moom moo di ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay sant. nga tudd. Amady Diouf. dégg nga Fall quoi man la Amady Diouf Baye Fall. Ah, sëñ Ameth Diouf Baye Fall. waaw man la Baye Fall. waaw ah, jërëjëf. Euh, fekk nañ la nag li nga xam ne moom moo di liggéey bi lan ngay def nii. bon benn table laay defar dama doon defar ay étagère moo mooy étagère yi naar yi lañ ko doon defaral mais après table laa bëgg a defar nii quoi dama am benn commande table boo xam ne. benn soxna laa ko bëgg a defaral fii taf taf. kon pare nga ci kii bi yaa ngi ci table bi kon mu mel ne yaa ngi ciy gis sa bopp naka liggéey bi mi ngi. sañ bañ la rek parce que ñun indi fi ñun yëngu moo ñu indi ko quoi comme ni ko sama grand bi waxee rek xam nga nit moom doo ko jiital di ko faxasal bon boo xoolee ñun ñëpp moo ñu fi jiitu comprendre nga ba ñëwee tamit bon dafa dund ak ñun lu rafet quoi bu ñu amee lépp lu ñuy wax moom moo ñu koy waxal mu ñu amee lu ñuy dox moo ñu koy doxal comprendre nga dañoo ñëw fii bokk fi ndey ak bàyyi nekk nag sa wërsëg moo nga fi dabu si ñu ngi jógee Kër Massar ñuy Thiaroy ñuy Pikine ñuy Grand Yoff mais boo ñu nekk da nga yor sa liggéey bopp à paax bon waaw parce que waaw ku nekk da nga ñëw fii pour sa bopp quoi bon dañu am ay client nag client yoo xam ne dañu dund ñoom lu rafet loo xam ne chaque année même bu ñëwul sax dañuy woo xam ci yéen jite lañ nekk. dafa am client yoo xam ne chaque année yéen a leen di liggéeyal. waaw ñu ñoo leen di liggéeyal quoi ñoom dañu garder suñu numéro ñu nit xam nga même bu dul foire bi sax dañuy gisee que Sénégal la bon waa Sénégal rek ngeen di liggéeyal yéen yow. Ah, non ñu ngi liggéeyal ñëpp ah, ñu liggéeyal Marocains yi parce que tamit lii Marocains yi ñoo ko moom. Marocains yi nekk fii ñoo ko moom ñoom ñoo léegi def commande bi ñu leen koy defaral waaw mais table bi benn sénégalais laa koy defaral oui. mais ba du ngeen yokk parce que dañuy gis na bu ñëwee ci foire ñu ci bëri prix yi dañ koy xaw a àcc euh, yéen nag ba bokk leen ci lool. ci ñoom non non non non ñun sax suñu client client yi fixe yi du ñu waxaale ak ñoom quoi parce que xam nañ parce que ça fait longtemps ñoom la ñoo duñu waxal ak ñoom dañuy ñew liggéey après ñoom xam nañ quoi wa parce que nit ki mom boko ko defalee ba jëndal ko mom bu bu bu jëndee affaire mom dina xam mom manœuvre bi na la wara tollu toll la quoi. kon des fois prix du ngeen ko discuter. non duñ ko discuter mom man mom duma discuter prix quoi parce que xaalis bi fi lañ koy bayyi honneur bi dal mo am solo quoi way honneur bi dal mo am solo parce que li timit bon comme dañoo woote nit ñi wuy suñu dañuy xol nu mu gën a ñu defee ko nonu quoi noonu la demee. am na solo loolu léegi ban kàddu ngay wax rek moo xam ki nga xamante ne nii ñu ngi ñu yor euh, liggéey bi wala yu demee noonu ngir comme que yéen a ngi jàmbat ne condition yi dafa xaw a métteeg yu demee noonu ban message nga mën a jàllale autorités yi. waaw mais waaw pour ñu bàyyi xam ne ñun ñun ay alaacu lañ ñun ay góor yàlla lañ ñun foire bu dawoon ba jam ñaaje boo yoonoo sax dañuy dem dóor parce que ñun ñun liggéey dafa bokk suñu dret quoi léegi rek gouvernement bi ñu war a mën a jàppale na la ñu mën a jàppale mooy comme comme yu mel nii ñu cadre parce que ñun ñu doon jëm créer ben association bo xamné bo ñun dañuy jëm manko ñu ci lool nak quoi xamna bu soot yàlla bu sottee inshallah bo dina dina dina dina dina ki quoi dina dina xewale wa parce que lool lañ bëgg quoi parce que ñu bëggu ñu tok liggéey rek moñ taxo jog parce que ñu lay wax ni ñuy boy ngay gis fi ñepp am mari ñepp a marié xam nga bàyyi seen i fe ñew di door war kon nga am kon nga xamné gaay am luñ bëgg quoi Sen atelier yi ngeen bàyyi fofu ñëw di door war ci euh, foire bi ndax euh, lim leen mën apporter par bis euh, foire bi dina leen apporter loolu. non non non non bon xam nga moy carte de wërsëg la rek parce que tamit atelier bu du yow yaa fay ne da nga fay nekk ak say natango quoi bo fa newul ñom dañ fa ne comprendre nga wat gaal yëgoo la rek parce que boy dem da ngay teg ak ñoom loo xam ne boo du ñaaw li bon moy nga am um tadi tay mu neex rek nga fàtte dembu mais bu ñu delluwaatee dañuy delluwaat nekkaat suñu war way dañu demaat nekkaat suñu war parce que ñun waar rek lañu xam way war rek lañu xam

mais de ce ñoo ngi ci lii di liggéey di ñaqee sunu sunu sunu sunu doole waaw sëñ Fallou quoi nañu gouvernement bi gëstu waaw ñu nag mooy loolu quoi lépp nag dañ ko jël yokk Xaadim Rasul waaw jaajëf ay taalibe Serigne Touba lañ waaw ragaluñu dara waaw te namuñu dara tamit. <laughs> lay nuyu. lay fay. nan nga tudd. Cheikh Koté. Cheikh. Cheikh Koté. Cheikh Koté fan ngay jógee. maa ngi jógee bon ba Cambérène Cambérène laa jógee Cambérène 2 waaw fa laa jógee bon ñun fii foire bi léegi ñun fii bëgg a yàgg quoi. mais liggéey bi mun naa ne chaque année dañ fiy ñëw ñu ñooy daaj e yi bu ñu bu ñu daajee estendre ba pare bon après ay kaaf la ñuy mujjee di defar léegi nag bon comme que ñun mënuñoo exposé bu ñu liggéeyee ba pare kaaf yi la ñu mën a teg pour maanaam am si tamit loo xamante ne ñun moom la ñuy yóbbu suñu boo xoolee suñu njaboot yi bon comme que kaaf yi bu xasee bu bu xasee ba commencé clients yi ni ñu koy ni ñu koy gisee dañ waa dañuy ñëw di jënd si. mu mujj bi sax dañuy def ba commande dañ dañ koy commandé bon ñun nag bon ay menuisier la ñu mais. ay ay nan laa ko mën a wax sax ay borom kër lañu mais ay borom ay borom kii lañu daal ay borom euh, euh, euh, nan laa ko mën a wax de sax bon ay borom xam-xam lañu daal borom xam-xam borom am-am ak borom doole. te ñun suñu liggéey demeewul noonu tamit doole yi tamit demewul noonu bon waa CES war nañ mën a jàppale tamit menuisier yi nekk ci foire bi parce que ñun chaque année. chaque année fi la ñuy liggéeyee dañuy daan suñu doole chaque année mais ñoom tamit ni ñuy waa ni ñu ci amee ni ñu ci amee intérêt ñoom it nañoo gestu ko waa ñu waa ñi nga xamante ne ñun menuisier yi boo xoolee estendre fii lu fi taxaw lu ne menuisier yee ko taxaw yee ko taxawal kon nag directeur bi moom ci wàllu boppam waroon na mën a ñëw ba fii ah dellu ñu njukkal ñun menuisier yi parce que ñun estendre bu taxawee fii ah, bon mënoon nañ ko louer ay magasin ay magasin mais ay bant lañ koy daajee te daa te bant bant yooyu dafa garanti bu garantul woon kon ku teg sa bagage day daanu mbaa mbaa mu nekk danger danger boobu nag comme que comme que menuisier yi ñu ngi siy def loo xamante ne seen àq na directeur bi ñëw xam nga wax ak ñun tamit ñun tamit ñu xam ne ne ah ñun li ñuy def rafet na. yow lan nga bëgg directeur bi wax ko ak yéen da nga cee gisul sa bopp wala liggéey. si ñu ngi siy gis suñu bopp macha allah ñu si siy gis suñu bopp ñu ngi siy gis suñu bopp macha allah mais nag lu ñu bëggoon nag mooy comme que bon ñun euh, exposants yi dañuy exposé mais bëgg nañ tamit bon euh, euh, directeur yi tamit ñëw. waa gisante ak ñun ne xamal nañu ñun suñu liggéey rafet na parce que ñun liñ fi bëgg a yàgg. encouragement sama encouragement la ñu bëgg a bëgguñu sax mu jox ñu dara mais dañoo bëgg mu ñëw ba fii encra mu encouragé ñu ñu xam ne kat ñii bon am nañ fi njëriñ ci foire bi quoi parce que léegi yàgg nañ fi def nañ fi ay 6 ans 7 ans yooyu xam ne ku def fi ay 6 ans 7 ans bi defoo fi tamit benn fan. yow euh, dafa mel ne double travail nga def wala triple parce que wax nga ne da nga bokk ci ñiy daaj stand yi mais tamit bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jaay bois yi bant yi ñuy utiliser en même temps tamit nga exposer ay kaaf yow da nga ñëw pour maanaam euh, euh, maanaam exposer comme comme foire bi exposition la da nga ñëw pour exposer wala yow sa kii dëggantaan lan la. bon man man sama liggéey daal. ñett yëpp nga bëgg a boole. waa ñett yëpp daal laa boole. man daal dama polyvalent man ñett yëpp laay bu ko boolee damay liggéey ci standard mën naa ne fii foire bi def naa fi léegi 15 jours mun naa ne def naa fi 15 jours parce que ba foire tijjee avant miy tijji maa ngi fi ba foire tijjee tamit maa ngi fi biy tëj tamit ma maa ngi fi waaw kon nag comme que loolu la nag comme que moo buy daaj euh, su ma daajee ba pare damay daaj ma daajee ba pare damay ñëw daajaat sama samay kaaf en même temps di daaj waa di jaay samay bant.

jaaykat yi dañoo ñëw pour jaay mais liggéeykat yi parce que ñun tam dañuy jënd ñu ñëwuñu pour jaay rek ñiy jaay bant ñoo ñëw indi seen bant mais ñun dañoo ñëw pour jaay waaw ñun dañoo ñëw pour liggéey sax laa bëggoon wax en fait dama ñëw pour liggéey mais ci kaw liggéey boobu nag dafa am ñoo xamante ne tamit euh, doole yi yamuñu doole yi yamuñu parce que am na ñoo xamante ne bon li ñuy fay ak li ñu dul fay tamit du waa du bokk boo xoolee étranger yi ñooy gën a fay que maanaam doomu réew mi fii doomu fii bu lay fay bu la naroon fay 1000 francs dañ lay fay 300 ba téeméer voilà c'est ça. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal am na solo loolu ci li nga xamante ne nii indi na ko. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom sëñ amaat euh, Baye Fall bi ginaaw nag bi ñu jógee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy menuisier yi ba tey daanaka mën naa ne damaa des ci ñoom waaye nag euh, ci banaanam ci ñi nga xamante ne nii jamono ji dañuy euh, jaay bant yi ci ñoom it laa ñëw ngir xool ñoom it seen liggéey nan la demee ak fan la toll ku baax maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. nan nga tudd. Moustapha Diop tudd. Moustapha mu mel ni ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy jaay bant yi ngir euh, menuisier yi mën ci defar li ñu bëgg ci ngeen nekk. waaw tout à fait ci lool lañ nekk soo xoolee loolu depuis des années ñu ngi koy def parce que suñ papa moo fu nekkoon di ko def mais actuellement dafa jëm mag ñu jël relève bi nekk ci di ko def di jaay menuisier yi bant yi ñuy liggéey stand yi en même temps tamit réparation yi nga xam dañ koy def ci biir stand yi ñu ñoo leen di jox bois quoi waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax parce que lépp looy def mu nekk héritage ci yow rek yaakaar naa gagné la quoi amul loo ci perte ndax lu sa papa don def nga wëlbatu ko def yaakaar naa même so ci amul l'argent tamit di ci kontaan kontaan boobu nga ci kontaan rek yaakaar naa gagnant la quoi je pense. jaay bant bi jamono ji fan la tollu bi foire bi di soga ubbi la gënoon dox wala instant bi nga xamné foire bi mi ngi waaj a euh, jeex ban. waaw en moment bi ñu toll ni dañu nekk ci moment de réparation avant client yi di ñëw. boobu dañuy jaay ñi nga xam dañuy ñëw di réparer seen i ñu leen di jaay boobu la gën a dox mais mois bi ñu toll nii nag par benn benn ñoo ñëw parce que ñëpp installé nañ commencé jaay ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu jaay ku nekk li nga indi woon produit yëpp nga jaay ko macha allah yàlla defal la ci ndam quoi. kon kon chaque foire yow da ngay participer ci foire. waaw waaw depuis des années moom ñu ngi fi quoi mooy li ma wax yàgg na suñu papa moo fi nekkoon di ko def mais instant bi comme jëm na mag ñu ñoo fi nekk mais ci li ma jàpp daal ci xayma. war naa fi def euh, euh, lu mu gàtt gàtt benn sept ans wala huit ans yoo xam ne ni chaque année dinaa fi ñëw di jaay. Euh, ba amoo bokkoo ci ñi nga xamante ne nii dañuy jàmbat dara ci wàllum liggéey bi ci wàll bi nga féetee ban jafe-jafe nga ci am. non alhamdulilah ñun fii suñ kër la si seet suñ kër la depuis des années ñu ngi fiy ñëw mosuñ fa am benn problème suñ ñëwee dañuy jox espace ñu teg jaay menuisier tamit képp koo am looy liggéey fi ngay ñëw képp ko am looy liggéeyal tamit aussi fi ngay ñëw franchement ubbil nañu buntu yëpp amuñu fi benn jafe en même temps suñ ñëwee sax dañ bañ nañ ko ba dañuy jox local boo xam ne ni suñ ñëwee ci la ñuy exposer suñuy bagage denc ko ba benn problème du ci am loolu moom ñu leen ci sant bu baax macha allah. yow daal côté bi nga féete yow bokkoo ci amoo leen benn problème lu ngeen mën a euh, jooytu daal. voilà ñun moom ñu ngi sant yàlla bu baax mais nag dari secteur boo dem rek il faut nga am ñoo xam dinañ sentir seen bopp am ñoo xam duñ sentir seen bopp mais ñun moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ne nii moom lañ fi indi woon di ko jaay nit ñu ngi koy jënd bu baax macha allah. amuñ ci benn jafe-jafe wax dëgg yàlla foo foire yaatal nañ ñu def nañu seen seen i doom parce que niñ niñ doon dundal ak paa bi rek noonu la ñuy dundee ak ñun cër bi ñu joxoon paa bi aussi tamit moom la ñuy jox ñu leen ci sant bu baax di leen remercier aussi ci loolu quoi